tiré E A am ngeen wit minutes yéen daal am ngeen wallaay agi agi beaucoup soxna si laa bëggoon bëggoon bàyyi mu expliqué leen ko sax waaye day togg añ xam laax donc finalement man maa leen koy expliqué wi ba xam ngeen luy satellite déjà satellite loolu ngeen gis ci jaww ji yenn saa doo leen ko romb boo demee aras di ñëwaat yéen ñuy dem bi ñëw du ngeen ko romb mooy li ngeen gis muy wëndeelu wëndaalu di wër réew mi àdduna fi loolu mooy satellite ab obséle boo xam ne ay nit ñoo koy defar envoyé ko dans l'espace maanaam ci jawwu ji muy wëndaalu di wër terre suuf si àdduna bi ak yeneen i corps céleste yoo xam ne yooyu yeneen satellite yoo satellite bu nekk li nga xam ne moom lañ ko yónni satellite nag mën na am fonction yu bëri wallaay agir comme ci wàllum communication wàllum météo communication mooy yi ngeen gis téléphone yeeg internet ak ñooñu seen wàllum météo maanaam ñuy wax suba dina taw ginnaaw suba dina neige aussi duñ ko gaaw a dégg moom suba dina taw ginnaaw suba dina tàng ginnaaw suba dina poussière Mauritanie yooyu noonu moo koy kii.

yoo xam ne satellite day tax mu ñoŋal ko ci recherche scientifique tax ñu nekk ci yeneen beneen niveau daal en tout cas donc li waral waxtaan bi nag mooy bii nga xam ne ñun ñii ñoo ko moom ñun waa Sénégal muy gaynde sat noonu lañ ko tuddee waaw waaw nam mu ca yebati ku la ñu jël ko tuddee ko gaynde lan mooy gaynde sat 1A gaynde sat 1A nag moom mooy suñu satellite bi nga xam ne ñun Sénégal démb lañ ko yónni démb ci vendredi bi 16 août lañ ko yónni ci jaww ji pour que mu doxal ñu ñu nit ay mission yi nga xam ne moom la satellite war a doxal am réew gaynde satellite nag nekk na satellite boo xam ne nano satellite la quoi bokkut ak satellite yu ngand yi nga xam ne si nii vraiment moom ngeen di gis ci ci ci ci jaww ji bii nii mën nañu wax ne entre un kilogramme ba trente kilogramme lay peser trente centimètres de côté la nano satellite la quoi. donc ñu ñu ay ingénieurs ak ay ay scientifiques sénégalais ñoom ñoo ko liggéey en collaboration avec le gouvernement avec l'université de Montpellier en tout cas ñoom ñoo ko defar donc ci xam-xamu doomi sénégalais lañ ko defaree ñu yaakaar na jomm nañu ñun sànni ko ci jaww ji pour mu doxal ñu ay mission lan lay jëriñ nag loolu am solo loolu la ñëpp di laaj dañ ngeen kumpa trop <laughs> wallaay agim bon satellite bi li muy joxe li muy jëriñ benn bokk na bu ci njëkk muy récupération de données environnementales moom gaynde sat mi parce que ku ne xam ne Sénégal après souveraineté alimentaire walum mbay mek ñom seen ku ne xam dafa engagé wu ci lu jëm ci walum environnement donc pour gën ko ñongal gëna xam lan décision lañ ci jël yan yan yan yan yan euh, perspective mo ci am gaynde sat dina recueillir ay données yu am solo ci ay ci ci ci station météorologique bi la station de mesure au niveau des eaux réparties dans à travers le Sénégal madame fu le yeeg ndox yi fu ñuy ëpp verdure fu ëpp n'a nangam ak nangam ay information cruciale en tout cas yu am solo ci wàllum gestion des ressources naturelles lu ci mel gaz bi zircon bi diamant bi or bi pétrole bi ak yenen, ak yenen, ngir ñu mën a gën a comprendre tamit dina tax ñu gën a mën comprendre tamit li nga xam ne mooy changement climatique bi ñu observé donc ba tax na satellite bi dina capturer ay images dina capturer ay images yoo xam ne si ni da koy jël ci fépp ci territoire sénégalais bi quatre fois par jour bis bu nekk dina photo ñett ñeenti yoon maanaam Sénégal ak ni mu tëddee ak ni mu doxee maanaam c'est image yooyu noonu dinañ servir de base de données pour yeneen projet de développement yi nga xam ne si mooy ñëw ci wàllum euh, urbanisme ci wàllum gestion des terres wàllum surveillance des zones rurales et urbaines wàllum xool dal Sénégal ak xar kanam gi ni mu tëddee lan mooy changer chaque jour lan moo def nii lan moo différent euh, weer bi weer bi lan moo lan moo am différenciation en terme environnement nangam ak nangam loolu yëpp njëriñu satellite bi la li ci Sénégal di gagné nag mom, moo moo ci ëpp solo waaw ndax ku ne xam ne ne euh, niñ naan souveraineté alimentaire autonomie dañoo soxla tamit indépendance technologique am sa propre satellite mooy tax ñun suñ bopp ñu bañ a dépendre ci yeneen données yi yeneen satellite di jaay wala di ñu ko jox ci yoo xam ne yeneen pays ñoo ko moom ak yeneen organisation internationale yi loolu dina renforcer suñu souveraineté technologique fii nga xam ne bu réew mi nga xam ne mooy suñu réew muy Sénégal di day améliorer la gestion des ressources ndax données yi nga xam ne moom lañ ciy jël moom lay jël dina tax ñu gën a mën a gérer ressources en eau yi maanaam suñ fleuve yeeg lac yeeg flag yeeg dune yeeg nangam ki nangam dina tax tamit ñu ñu mën a planifier ay infrastructures en fonction des besoins réels du pays fii nii saxaar war na fi mën a jaar ginnaaw bu ñu jëlee photo par dina xam ne zone bii nii c'est peuplé bëri nay dëkk bëri na ay tool nangam ak nangam war nañ ci mën a jaarale route nationale war nañ fa jaarale autoroute péage wala war nañ ci mën a jaarale train et cetera yooyu yëpp information yi loo xam ne bu ko joxee rek bu ko jëkkee dina xam ñi nga xam ñoo jiite y décision des décisions décisions en termes de de planification développement infrastructure et tout dina it tax ñu am scientifique et technologique ndax boo xasee defar te nekk di gérer satellite am na yeneen kii yoo xam ne si mettre à disposition de ce satellite muy yeneen compétence locale ay ingénieur spécial yoo xam ne da nga leen formé nga ubbi yeneen yeneen voie ci li nga projet innovant euh, ubbi yeneen euh, xeetu formation nouveau expert domaine lu ci Sénégal di di supérieur surtout recherche scientifique positionnement international tamit am nga satellite fan ñun parce que Sénégal bokk na ci pétrole gaz

de de de de nouvelle xaw ma nuñ koy waxee technologie et cetera léegi nag ñun citoyen yi yey li nga xam ne ci gaynde chat moo tax ñu war ko gën a ndamoo parce que dina tax si ma fait réalisation technologie boo xam ne directement ou indirectement dina améliorer suñu vie quotidienne ñun sénégal yi ndax dina joxe ay données yu crucial ñi nga xam ne ñooy gouvernement ba mën a jël ay décisions yu gën ci ñun dina tax tamit. ñu mën a def une gestion des catastrophes naturelles parce que Sénégal tey jii yu ci bëree bëri mu ngi am ay ay ay ay ay catastrophes naturelles la comme inondation yooyu dinañ ci mën a jël ñoom ay mesures xool fi ñu war a def planter ay arbre ay nangam ñoŋalaat environnement bi ba tey jii bu ñëwee. di dinañ xam zone yi gën a bàyyi gën a xóot yi gën a nàngam ba nga xam ne bu ndox ñëwee dinañ xam nuñ koy gérer dina am solo ci wàllum planification urbaine wàllum protection de l'environnement surtout xool fan moo ëpp def forestation ñu demaat encore jëmbataat fa ay garab loolu yëpp ay éléments la yoo xam ne satellite bii rek moo ci mën a dimbali donc pour ñu yaakaar na c'est juste rek benn objet bu ñu sànni ci kaw pour wën muy wëndaalu ci kaw kii bi mel ne kuy fecc rew tàcc loolu daa am lu muy indil réew mi loo xam ne si ni à partir de démb normalement dana changé lu bëri bëri ci Sénégal ak ñu ndax ak décision yi nga xam ne autorités yi doon nañ ko jël à l'aveuglette maintenant lu ñu jël rek satellite bi mën na leen ci indi données yu clair waaw yu leer ba tax ni ñu xam liñ cee jëlee ak. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ciy ñongalee dundu Sénégal yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu leen di fàttali yéen ñi nga xam vidéo bi neex na leen ngeen aimé te abonné <laughs> wallaay asim sama abonné followers yi ñoo xaram rek laay